mbokk yi dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci mbiri soxna Aïda Diallo ak na mu nara waajalee tabaski gi nu jëm nara dëppoog le 31 juillet 2020 comme ni ko sangam bu tedd ba daan defee Cheikh Béthio Thioune jàmmu Serigne Saliou Mbacké saa yu tabaski nara na jub si si jënd ay xar yu baax ak i lami àndal nar ko jébbal sëriñam bu tedd ba waaye tamit jébbal ko ñu nga xamante ni seen doole dafa néew soxna ay Aïda Diallo mi nga xamante ni tey ji moom la fi bàyyi di njiital cantakon yi wala sax njiital ay taako ko ni jaar na ca yoon boobee loolee nag la koy firndeel moo di samedi gi nu génn yamook 18 gis nañ mu wàcce ay xar yu bëree bëri yu cher loolu foofe ca Medinatu Salaam mu ànd ci ak ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon ay wujjam ku ci mel ni soxna door ak soxna Adja Saliou ñoom ñett ñi fi nekkoon soxna yi Cheikh Béthio Thioune yépp boole nañ seen doole ak seen alal ji ñu am ngir waajal tabaski gu baax a baax ci ak mbégte ak complicité gu mat sëkk ci la ñoom ñi nekkoon soxna Cheikh Béthio Thioune njiital cantakun yi daal amale ab défilé mouton noonu lañ ko mën a waxee ndax kat daanaka lu tolloo ko ay waxtu yu bëree bëri nit ñi ñu ngay wàcce ak yëgal ay xar yu seer loolu te jekk machallah talibe yi nga xamante ni nag aju nañ ci ginnaaw soxna ay Diallo ma xam ñu nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci biti réew ku ci nekk dajale nga li am ngir jënd ab xar boo xamante ni ku ko xool daal koy xoolaat événement bi nag nekkoon na ab événement boo xamante ni nañ ci rendre grâce ki nga xamante ni mooy Serigne Saliou Mbacké mu nga xamante ni mooy seen yaakaar tey ak ëllëg daanaka nag benn ay bés rek moo des ñu feete li nga xamante ni moo di tabaski yi waaye nag mu mel ni soxna Aida Diallo ak ñi ma àndal pare nañ ci fel na fu nekk ngir dimbali doomu aadama yi nga xamante ni soxla nañ ko ci jamono jo nga xamante ni coronavirus mu ngi lëmbe ci réew mi ba tax ñu bëree bëri ñàkk seen liggéey lii moo waral ba soxna si takk ba dëgër ni dina def kémtulaay kàttanam ba dimbali ñi nga xamante ni ñoo ko yeyoo ci tabaski ki comme ni mu ko defee ci weeru koor bi ak ay ndimbal yoo xamante ni joxe na ko fenn fu nekk ci dëkk bi jërë ngeen jëf